Sunugal 24 point ngi tudd Thierno Alassane Sall di bokk ci mouvement République des valeurs di balu àq sénégalais yi ci korite gii ñu weesu Euh, di xam ne ndax ñun ñu ngi ci télé yeeg rajo yi di wax rek amaana lu di léeg-léegi ñu ci njuumte wala bokkul suñu coobare ñu am ñu ci wax loo xam ne naqari na leen ñu ngi leen balu àq di aussi nuyu euh, mbokk euh, catholique yi nga xam ne ñu ngi waajal pèlerinage ngeen ak Pentecôte bi di leen souhaiter vraiment excellente fête. waaw mbir mi nag fan yi mu ngi histoire day accéléré wu maanaam bu léegi maa ngi seetaan benn vidéo bi nga xam ne ki nga tudd Aliou Sall mu ngi ne lu ñu koy reproché mooy xaalis bu duun bi nga xam ne jot na ko waaye donte ni sax xaalis bi duun na euh, ci par rapport ak ki nga xam ne moom la dimbale ba mu gañe xaalis bu bëree bëree bëri moom jàddu na moom it mu am ci euh, asaka lu lu mu ci jël dafa toll ne asaka dafa mel ni loolu. Euh, dañ ko ne hey que moom xar bi rek moom mu bàyyi buum bi euh, ndax loolu moom vraiment aveu la nangu na ni pratiquement que moom euh, donte ni xaalis bi dun na waaye du dara ci par rapport ak kële li mu jot te ñun loolu moo moo ñu moom moo ñu moom moo ñu tax a jóg xaalisu Sénégal lu tax koo xam ne ba ñuy wax ni timis nee nañu kan mooy timis ak fu timis timisoo pour timis timisoo waxuñu ba ñuy wax déet ñoom ñu indi ñu gee ndax timis Sénégal yëpp Afrique yëpp jàpp nañu ni gannaaw rapport inspection générale d'État benn moom benn waaye la boo xam ne dafa bëri ay njombe yu ñu koy tuumaal ci àdduna bi yëpp rawatina fii ci Afrique fa mu soqee ko muy réew yooyu mu bokk ci nas réewum tubaab yi nee nañu dafa fa amoon ay lëj-lëj ba mu yoon am lum ko daal mu nekk Angleterre gaa yaa ngi koy euh, jiiñ foofu que alal bu mu fa yor ak kër yu mu fa yor yëpp daanaka fistine lay fay wax ma de ay cinquante livres ak yooyu la mm, Global Witness ne lay fay impôt maanaam daal xarañ na ci dàqanteeg waa impôt foofu ba du fa fay daanaka dara ci impo waaw ku mun a nax nag lu mel ni fisc britannique moom ay administration africaine yi doy ci moom dara loolu nag du pour teggi li nga xam ne moom mooy responsabilité ki ko fi dugal ñi ko fi njëkk a dugal moom mooy Ablaye Wade gis naa ni mu ngi génn ay décret ma leeral mu leer naññ que li mu génn bi du contra décret de d'approbation contrat bi la pour auditeurs yi comprendre contrat bi ci boppam Ablaye wàdd ak Karim wàdd ñoo ko xaatim Ablaye Wade ak Karim Wade ñoo ko xaatim ak directeur général Petrosen ba fa ne woon ki fi Petro Timis yebaloon ci turu Petrotim xaatim ko ñu ngi ko xaatim ci diggante ñaari tuuru président seelu 2012 mu nekk loo xam ne lu doy waar waxuñu sax diggante ñaari tour dañu ne presque ba mu desee ay waxtu rek ñu ñu def élection bi ñoom ñu xam ne loolu njombe la ñu daal di koy antidaté maanaam mel ni que ñoom dañ ko xaatimoon bala loolu ñu def ci 17 janvier ci seen parax parax boobu nag fàtte ni Petrotim bi nga xam ne mu ngi signé moom it signé na fa siife na fa ndeke moom 19 janvier lañ ko créé maanaam Petrotim bi nga xam ne signé na ñaari fan gannaaw bés bu mu signe la juddu loolu mënut a nekk muy ay firnde yu wóor ne lii mbirum njuuj njaaj la loolu nag ci jamono Ablaye Wade la woon pour auditeurs yi comprendre. mu desoon nag décret yi nga xam ne moom moo waroon tax contrat boobu valable ndax loolu la yoon tëral décret yooyu Ablaye Wade signé na ko Souleymane de Ndiaye signé ko mais am ay sénégalais yu bëgg seen réew comme ñii ñun ñii ñu waroon teg ci yokk ci numéro pour lépp jeex doog ko publier journal officiel ñu ne lu doy waar nii mënuñu ko seetaan duñ ci def numéro dañuy xaar ba kiy wuutu Ablaye Wade ñëw. mu lijjanti mbir mi ñooñu sax woo Macky Sall wax ko ni ah seen gars yi dey ñu ngi fi def ay njombe yoo xam ne yu doy waar la ñu ngi fi def ay décret ay contrat yu doy waar Macky bu ngeen fàttalikoo ci diggante ñaari tour présidentiel bi àddu woon na fi ne am na yu doy waar yu ñu fay def bu ma ñëwee damay annuler lépp. Nous mettrons un terme à la gabegie, à la corruption et ériger un système de gouvernance. moo tax ba mu ñëwee. mu yebal inspection générale d'État pour mu saytu mbir moomu yàkkamti woon loolu nag parce que comme tour Karim Wade da nga ci woon te ñu ngi buggoon pexel Karim Wade ñu ne nañu saytu xool lépp ba ñu saytoo inspection générale d'État ne leen lii dafa defuwut ay njombe kese la ay luubal yu day waar ñoo fi ne donc dañuy annuler contrat bi bañ a signer décret bi daal di topp ci yoon yóbbu ci yoon ñi nga xam ne ñoo def jéye yi moom au lieu que loolu mu def loolu moom mi yebaloon inspection générale d'État te ñu jox ko tegtal yu leer nii mu signé décret yi décret yi yi nga xam ne moom mooy tax contrat bi léegi mën a nekk yu desoon rek pour contrat bi mën a nekk def naa ne foofu leer na donc pour résumer bu gouvernement Sénégal newee <coughs> que affaire courante lañ fi fekkoon di ko expédier expédier déedéet luubal courante bi nga xam ne moom moo moom lañu yàgg di nga ci jamono yooyu moom lañ fa fekk te waroon ko lijjanti ñoom ñu wéyale ko du benn affaire courante c'est des faux qui en instance en affaire courante effectivement des faux et des délits ñoom ñu wéyal ko loolu mooy réalité bi et donc euh, affaire timis bi mënul woon nekk bu fekkee ni Macky Sall la ko inspection générale d'État waxoon def na ko ñaar rapport présentation bi tax décret ñaari décret yooyu ñu mun leen yóbbu conseil des ministres signé ko ndax ñaari contrat yu wute la benn bi pour Saint-Louis offshore profond beneen bi pour Kayar offshore profond rapport de présentation bi war a mën a wax président de la république ak premier ministre parce que dañu supposé que ministre bi la ñu dénk yenn responsabilité yi moom moo ko war a saytu liggéey ci ba mu set indi ko conseil des ministres informé conseil des ministres bi yëpp wax leen lépp nu mu demee mu jël responsabilité am def. rapport présentation boo xam ne moom ak décret bi ñooy ànd moom mooy maanaam luy waral décret bi expliqué ko mu bind ci ay loo xam ne nekkut ne Petro Asia kër bu mag la buy liggéey ci affaire pétrole am na fu mu fu bëri fu mu liggéey pétrole type Petrotim nangam nangam sos yu bëri teg mais ñu signé décret bi wéyal ko te ñoom boobu moom mii ko bind noonu boobu moom moo saisiroon président de la république par lettre ne ko affaire pétrole bi ci diggante ñaari tour yi am na yu day waar lu ci lu ci xew ndax Tullow Oil mi nga xam ne moom moo nekkoon depuis 2010 di topp yooyu di bugg contrat bi di ci topp di ci dox di def ci lépp lu mu war Tullow Oil dañu bàyyi ba diggante ñaari tour yi génne ko dugal timis Tullow Oil nag moom moo bind ab benn réclamation di wax nañu leeral mbir moomu moom Aly Ngouille Ndiaye saisiroon na président de la république ngir loolu président de la république euh, saisir inspection générale d'État donc moom bu bindi rapport de présentation boobu ci ay base information yoo xam ne jëlewu ko fenn ci àddina bi moom loo loolu moom il est aussi il a aussi sa part de responsabilité am na ci responsabilité bu rëy rëy loolu Sénégalais yi mot na ñu xam ko parce que wax ji bëri na mais ko bu ñu dégloo jël temps rek dégg ko benn bennal ko dina leer ci seeni euh, xel donc bu loolu wéyee timis nekk fi at deful daanaka lu am solo parce que mënu ko ni ko rapport inspection générale bi d'État bi waxee woon timis amul kàttan gi amul xarale bi amul xam-xam bi amul moyen financier yi te ñu wut déglu leen bu baax li may wax dafa am solo te ñu wut pour liggéey dafa ñëw pour def spéculation maanaam jënd teg ci bénéfice bu duun jaayaat ko keneen dem yoonam waaye moom mu ñëwul pour liggéey mënu ko bien lu ko firndeel mooy timis toog na un deful dara il a Cosmos gis gaz ci Mauritanie te fa ñu gisee gaz ci Mauritanie dend ak Saint-Louis offshore profond ñu xam ne fële am na war na am gaz yu ñëw waxaaleeg timis jënd 60 pour cent def liggéey bi yëpp ba ñu ba ñu découvrir gaz ci Sénégal muy Saint-Louis offshore profond ak Kayar offshore profond di gën a firndeel encore que Pimis nekkul woon ci disposition liggéey te liggéeyut mooy beneen bloc bi mu fi amoon ci turu African Petroleum muy Rufisque offshore profond ñetti at liggéeyu ci dara ba man mii man maa nangu permis bu mu yoroon foofu permis boobee la ñu jox total ci après ba mu indi coow loolu moom it donc foofu def naa ni leeral naa ni timis ñëwul woon pour liggéey te amul woon kàttanu liggéey waaye koo xam ne nag ñëw nga tugg suñu pétrole di koo xam ne dafa mel ni ci tàngu colonisation rek benn waay bu jógee fële euh, xam nga tàngi colonisation bari woon na ay gars yu def ay njombe Europe ba ñu ba mun ba xaajatuñ fa ñu toxal leen Afrique pour ñu ñëw dëkk fii def euh, développé wu fii tuuti ñoom seen ñu bon ñëpp fii lañ leen daan yebal mu mel ni jamono jooju lañu ñu dundaat benn waay boo xam ne. mënul dara seen dëkk defu fa dara amu fa dara ñëw ci Afrique ñu suñu dëkk yi ñu jox lu dun mu toog ba affaire bi sotti war ci amay milliards yi milliards yi milliards ba ma gisee loolu man 24 avril 2016 yàgg 2017 yàgg naa ko wax ma gis ni moom 30 pour cent yi ca des Total BP ñëw na ne daf koy jënd bukk ko ci fay bala loolu sax nee naa timis mi dañ ko war a génne di laajte ci an anam la fi ñëwee ak naka la ñu mën war a ba génne ko ñi ma séqaloon waxtaan bi ci ministère bi wal du woon ci biir ministère bi rek waaye ci lu sës ci ministère bi mel ni Petrosen ak feneen kenn ci ñoom mosuma jàppale ba wax ma yan anam la fi timis ñëwee ak naka la demee ak jox ma information yi bu ma leen waxee daal yu yu dee lañ may wax ndekete ñoom. boobu jamono jooju inspection générale d'État woo na leen laaj leen ba déglu leen sous sous audition ba ñu xaatim ñu làq ma loolu lépp waaye yàlla ci ay coobareem ak kàttanam mu ma dimbale ma ba nga xam ne man yi ma soxla woon xam xam naa ko ci samay pexe bopp ba ne léegi timis daal nañ leen fexe ba génne fii jaaduwul timis ñëw dugalu fi dërëm liggéeyu fi dërëm tekkiwul dara bëgg a jël suñu 30 pour cent muy ay milliards yi milliards yi bu ko jaay dem yoonam ma ne nañ ko nangu defaat defaat ko suñu moomeel euh, bu dee am na ak as wecci tuut bu mu fi dugal ñu delloo ko wecci jooju bi loolu moom lu leer la waxoon naa ko bala problème yi di am euh, ba mu ñëwee nag moom ne day jaay li nga xam ne moom la la yoroon 30 pour cent yi ci des bu ko jaay ci anam yooyu ma gis ni nangu bi ñi ma ci waroon jàppale jàppale wuñ ma ci ma ne leen man du ma signé mukk ilaa yow mi diin lii nga xam ne moom mooy tax timis yóbbu alal ju doy ni jaay ko bépp bëgg naa leeral foofu pour daanal rek que bu président la république newee mbir mi entre ñaari privé la comme ni mu waxee foofu ci grande mosquée mu ne mbir mi entre ñaari privé la gisul moom bu kenn ku moom alalam di jaay alalam gisul lu ci intérêt lu gisul lu ci yoonam mais kooku c'est très très grave pour président la république pétrole bi ci pétrole Sénégal la loi dafa ne kooku bala muy jaay il faut accord approbation ministre lu tax parce que est-ce que dinañ bàyyi ay sambabo yu ñëw fële rek jënd suñu pétrole ci beneen waaye ñu ne privé la ñu ñëw toog eh, dugg suñu réew te exploiter pétrole bi même bu dee ay sambabo yi lañu même bu dee ay terroriste lañu wala même bu dee ay dealer lañu ndax rek parce que privé la mooy moom privé mel ni njaay mi ci njaay lu ñuy jaay lii ci suufu. Angleterre la nekk wala suufu Roumanie mi Tunis Tunis soqe ko ci Sénégal la nekk loowu Sénégal dafa ne bala muy mun a jaay moom euh, timis di ko jaay BP képp bala mu koy jaay il faut Sénégal saytu ndax loolu jaar na yoon il faut mu joxe accord am approbation signé loolu taxoon ma bañ ñi duma ko signé te signé wu ko ki ko mujj signé d'ailleurs mooy ba ñu xamee ni bañ naa démissionné te mbir moomu. bu ñu jëlee keneen tamit peut-être coow li day bëri gën a bëri rek ñu jox ko Boun Abdallah Dionne nga xam ne moom luñ ko def loo mu def mu signé waaye rapport de présentation bi ma conseil des ministres kii rapport de passation de service bi wax naa ci ba mu leer bindu ci kanamu inspection générale d'État nee leen lii nii ngeen di def nii du ci njëriñu Sénégal bu leen ko def te man mii loolu moo tax defuma ko sunugal 24 point net